ñi ngi ko bëggoon a tëjee wax ay mbir yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ ko daan nettali ci ñoom ak itam ñu ko daan def eh, ci xeeti mbir yu yéeme yoo xam ne wahabi yu ne yi dañ koy bañ ak di wane ne loolu ay caaxaan la ak di wane ne loolu ñuy juyo ak sunna ñoo koy woote wo di ca nek waye loolu du deug du sunna du mbaax maanaam mbiri tasaw mbiri caaxaan la ak yu ni mel fekk loolu boko ko ba xol ko bu baax ñak gestu ak ñàkk xam li borom xam-xam yi nekkewon ak lañu wax ci seeni téré rek mo koy waral ngay gis ak gone goneg wahaabi walla ak magam magug wahaabi te ñoom ñaar ñëpp muy gone gi ak mag gi ñépp dañoo bokk jikko boo xam ne ñoo ko bokkale ku mag da koy da caa nekk gone itam nekk ca ci wahaabi yu ne mooy fen maam wax loo xam ne dara du ca dëgg e, moo tax diine caaxaan la ku yàlla dimbali da nga ci génn ndax sampuwul ci dara dara dara dara ludul ay fen tay gis nak kenn ci ñoom di wax ne nangam wérut wala nangam du sunna wala gem gem sangam loolu ay caaxaan la niti caaxaani ñoo ci nek yow nga yër téré ibbi ibbi waat xol gis ab borom xam maga maga mag la kee doon wax ne ay caaxaan la mom loolu la nek nga xoolaat gisati keneen nga xoolaat gisati keneen gis ay borom xam-xam yu bari nangam ji wahaabi yu di siiwal de lool du dëgg ñoom ñu ne ca ngay xool rek di gis rek di gis rek di gis rek loolu lu mu lay mujj jural ay mujj nga yéemu ci feni wahaabi yu ne yi yal na yàlla musal ci seenu ay. bokk ci yiñ doon weddi di ko weddi ba léegi guñ ci mooy gise ak ak xadir wala xudar kooku moom dañ cee bind sax téere boo demee ci taqdisul ashxaas fil fikri suufi Muhammad Ahmed Lo daf caa weddi gisante ak xadir moom loolu munta nekk ay képp ko wax waxoo dëgg dégg nga kat yi ci lañuy jaare di samp seeni caaxaan waaye xadir moom dee na bu yàgg dégg nga képp ko wax ne day dund wala nangam nangam ci caaxaan nga ne bépp sëriñu tasawuf ma ngay jéem a woote gise xadir ngir bëgg a samp ay salaatoom ngir bëgg a samp ay nangam ngir bëgg weddi gisu xadir tamaman daati classé ñi ko gis ñëpp ak ñi wax ne dañ ko gis ci ay caaxaankat ak nit nitu neen ak ñoo xam ne dañoo bëgg a wuuteeg sunna dañuy xeex lislaam ne ñooñ ñooy wuut ñooñ ñooy woote gis xadar bépp xeetu saaga wu nekk daal wax na ko ci biir taqdisu asxaas ci wàllu gis gis xadar te muy masala moo xam ne maanaam la gënoon jàppandi sax boo mënta saxal nga indi ne borom xam-xam dañ cee wuute ci diggante mu ngi dund wala faatun indi wuute bi indi nangam nangam waaye ñëw écraser ñëpp ñëpp ñëpp ñiy wax loolu ñii saxal ne dund na def leen di écraser ñi wax ne gis nañ ko daf leen di écraser dara wéru ci ay caaxaan la xam nga luñ bind ci téere te taalibe yi jàpp nañ ne sëriñ bi moom du fen lu mu wax rek loolu xam-xam la den lu mu wax rek dëgg la ak nangam ak nangam ñu tàmbali di ko taqdis nag moom moom borom taqdis waaye boo demee ci xanaa xanaabila yi comme niñ koy waxee rek ba tey génnuñu madhab ahmad ibni hanbal ndax foofa la ñiy wax ñiy woote woo ak wahabiya ak di ko doxal foofu lañ jóge wala foofu lañ doon askanoo xam naa tooñ nañ tooñ nañ mazhab ba lool comme la ibnul jawzi doon wax ci mujassime yi niñ tooñee mazhabu ahmad boo demee ci azzeyl ala tabaqaati alxanaabila ibnu rajab alxanbali nettali na fa ne nettali fa ne xadir mi nga xam ne moo àndoon ak du beneen xadar de bi àndoon ak yonent yàlla Muusa nee loolu boroom xam-xam yi wuute nañ ci am na ñoo xam ne dañ ne xadir am malaaka ñu ne déedéet nit la te loolu mooy li nit la mooy li am ñoo xam ne dañ ne faatu na am ñeneen ñu ne dee na ñu ne mi ngi dund mi ngi mu ne mi ngi dund nag mooy li te dagan na ba léegi xadir ñëw ci buntu ku nekk mel na ko yelwaan nee na loolu moom lu mën a ne la mu nettali ay ay nettali yoo xam ne dafay tegtale gise nit ñi di gise ak xadir ak di daje ak moom ak di waxante ak moom ibnu rajab alxanbali ci tabaqaatul xanaabila ca jukki bu jëkk ba page 277 boo demee ci siyeeru alaami nubala bu zahabi zahabi ma nga cay nettali ne omar ibnu abdil aziz ku ñuy wax riyaax ibnu ubayd wala ibnu ubayda moom moo nettali loolu mu ngi ci siyeeru alaami nubala jukkib juróom page 122 mu ne museen omar ibn abdul aziz muy dox jëm ca jàkka ja waaye am na am màggat mu sukkandiku ci moom màggat moo xam ne daal ko jàpp jàpp loxo bi di ko dimbali pour mu dox dem ñoom ñaar ñu ànd dem ca jàkka ja nee na riyaax daal ne ah kii de xam naa góor gu màggat la kii de ak ni muy doxee ni coono bi jëm ja ba mu jullee ba noppi riyaax daal ne abdul aziz omar ibn abdul aziz ah maa ngi la yàlla yàlla dimbali jàppale la yàgg sa góor gi boobu omar du woon buur de du woon amirul muminin nekkagu ko woon yàgg sa góor gi nga xam ne moo doon sukkandiku ci yow ci sa loxo mu ne ko kon gis nga ko mu ne ko waaw gis naa ko mu ne ko kon yow de nit ku baax nga loolu lan la ci déggee kon khadir man na dox and ak nit and ak omar ibn abd aziz te omar rek la gis ku bax deug deug nak sel te ne ko wahabin man nga ko gis nak sey bët yalla man nako ko kon dara dana am te do ko gis yow yang koy deg ci wax ji ne ko ne ko yow de ku bax nga comme yow man nga ko gisal di ko gis ni du ñepp ko mën gis mu ne ko koku moy khadir daf ma doon xam daf ma doon yëgal si nekk gi ma war a nekk amirul muminin te dinaa ko doxalitam itam doxalin bu wér loolu la ma doon xamal si boo demaatee ci séeru alaami nubala ba tey jukkib 19 page 53 ba muy tarjamaal abul faraj alhanbali nettali ne ne moom abul faraj gis na gisante na ak xadir ñaari yoon xoolal fen yii rek a benn waay bind téeréem ne xadir mu ne su ko gis képp ku wax da nga koo gis da fen waaw nit tasawuf ñoo ko wax te seeni caaxaana tax ñu wax ko dañoo lal ay dil di woote ne gis nañ xadir pour pour légitimer légitimiser ay mbir waaw ak nangam nangam loolu moo nekk tax yu asxaas de ay feni neen léegi ñii ñuy nett ni nag ñii duñ ay mutasawifa xanaa duñ ay boroomi xam-xam xanaa duñ ay xanaa bi la xanaa boo demee foofu wax na ne gisante ne ak xadir ñaari yoon ibnu rajab alxanbali ba tey ci azeyl ala tabaqaati alxanaabila jukki bu njëkk ba page 240 ba muy tarjamaal ku ñuy wax ibrahim ibnu dinar ñu koy wax abu hakim wax na fa ne E, ibnul jawzi moo wax ne gis na abu hakim mu bind mooy ibrahim ibnu dinaar gis na am mbindam moo xam ne daf caa bind ne gisante na ak xadir ci guddik ajjuma fukki fan ci rajab dégg nga gisante na ak xadir xadir ne ko prépareel pour faatu mu def ci xelam bëgg koo laaj ñaataa ma dese xadir ne ko dese na la fukki at ak ñaar boobu mu ngi am soixante cinq ans mu ne ko dese na la fukki at ak ñaar bañ ko toppee la ko xadir waxoon noonu la amee ci ci ay nelaw de la ko gisee waa bi yu nag règle biñ teg mooy règle bi gën a yomb ci règle yi mooy képp ku wax dara ne gis naa nangam mu wax ma nangam du dëgg léegi nag loola la nga gis kon dañ koy évacuer dañ koy tuxal bu dee da gis yonent bi dañ naan seytaane la du yonent ndax yonent doo ko gis du la wax dara nangam nangam boo nee gis xadir ñun la du dëgg léegi tuxal gi ak ka wax ak yow dañ koy yóbbu daan ne seytaane la maanaam daal koo mën a gis ak lu la mën a wax seytaane wax ak yow ak lum mu mën a am ak lum la mën a wax ak lum la mën a wax kii nag moom gis na xadar xadar wax ko li ko dese ci dundam gént la de waaye noonu la mbir ya xanaa seytaane ko wax loolu kon ay ci ñu dem eh, ibnu rajab alhanbali ba tey ci zeylu ala tabaqaati alxanaabila jukkib ñaareel page 197 maa ngi fay wax ku ñuy wax musaab ibnu thabit ibnu abdillahi ibnu zubair mu ne musaab moomu daana julli daana fanaanee julli ci ci ci ci ci ci guddi gi bëccëg gi yépp da ko woor benn bis nag woor ba jant bi sox te amul lu mu lekk nag loolu def na ko ñaari fan xiif ga di bëgg Nena ray nak neena mu dugg ci jàkkay yonente bi alayhi wasallam fi ñu tëral yonente bi alayhi wasallam mu daati ñaan ne yalla dama bëgg nga may man wa dogo ñaan gi nak daf ka dàkki daf ka ci xabru ba te du ñu dañ koy bañ xamuñ dara fenn neena fa mu di ñaan gis am ku ñew lim don doon sàkku pour lek ko lol la ko indil mu lekk ba suur kooka jëlaat bool bi dem comme waxut ak moom dara nag mu ne dab ko pour laaj ko mooy kan kan la nee na mu séen ko mu génn ci bunt bi mu topp ko génn ci bunt bi gisul dara moom kii nettali moo ne xadir la maam moom moo jàpp ci xelam ne kim gis kon xadir la xanaa doone seytaane daa am benn waay boo xam ne dafa xiif ko woor ba son xiif seytaane jox ko mu lekk te gisaatu seytaane ba tey al imam ahmad ibn hanbal doon gungi ku tukki loolu mu ngi ci tabaqaatul xanaabila bu abul xuseyn jukki bu njëkk ba page 191 da doon gungi ku tukki ba xaw a sori bi mu soree nag xelam nekk ci tukki waye mu xalaat ne man yoruma dara yoruma luma lek yoruma yobbal yoruma nangam neena na ci saasi benn góor daat koy kar ne ko ah yow de li la tee tukki moom dodul dara ay awma mali awma mali and, ànd ci xelam la ko waxoon de kookal kan la mu ànd ak moom ñoom ñaar ñu ànd continue saa suñu xiifee góor googu dana wuti luñ lekk te ye gën a neex lay doon mu lekk ci te moom góor googu du ci lekk maanaam Ahmed rekk mooy lekk lu mu bëgg ci yoon wi dañ ko am ba jub ba bañ aj nag ba aj ga jeex yépp ñoo ànd amuñ benn jaaxle kii doon nettali ñu ko abu tayib daat ne euh, laaj na abul qasim al bagawi mi nga xam ne moo ma nettali loolu ne ahmed ak ko wax laaj na abul qasim al bagawi moomu est ce que góor googu àndoon ak ahmed yéen xam ngeen ko wala ahmed wax na kan la abul qasim al bagawi moom mi nga xam ne moom la Ahmed nettali moone moom yaakaar na ne xadir la kooku amul problème xadir dee na ak yooyu dégg nga ci xanaa xanaabila ba tey abul xuseyn ci jukki bu njëkk ba page cent quatre-vingt-quinze nettali na fa nettali na fa ne Ahmad ibn Hanbal bi mu nekkee ci kaso bi nga xam ne dañ ko dóor dóor yu metti ba noppi bis ba dóor ya taree am na ku ñëw benn jeune bu ñëw dugg ci fiñ ko fiñ ko tëj ci kaso bi nu mu duggee ak fu mu jaaree fu jaar garde yi kenn xamul ñëw nag indil ko lekk ak naan yu ni mel ba noppi. Euh, daat koy faj ñu koy fajee ak yëpp ba pare jox ko mu lekk jox ko mu naan ci yërmandeem nag moom Ahmad mu ne mu ne sama mbokki prisonier yee est-ce que deesu leen may ci affaire bi waa ji ne ko nag lii nag ndox ndox mi nag àjjana la jóge ndox mu ñuy séddalee ka maye ku nekk sa jëf mooy tax nga kii dégg dal ne ko man nak end la jógee fofu la fofu la dëkk loolu wax ak mom wax ak mom daal di jóg dem wa bi ni li ku ko nettali won dañ naan la dagay fen te loolu mo nek ci téré haram bi lay ci ibnu rajab alxanbali zeyla ala tabaqaati alxanaabila itam ba muy tarjamaal muwafaquddin ibnu Qudaama dafa wax ne dafa nettali nettali ba daal lam jamtalu lam la la la lañ ca soxla dëgg-dëgg mooy kii nettali wax ne moom moo gis mu wafiqu diin muy dox ci kaw ndox loolu nettali nañ ko fa ñaari yoon ku ñuy wax Eh, ibnu ahmad ahmad ibnu mahdi gannaaw ba mu wafiqu din faatoo ay ay fan moom moo wax ne gis na mu wafiqu din muy jàpp ci bunt dex gi jàpp ba pare dox jéggi dex gi dem ci beneen côté bi continuer dem yoonam mu waat ne moom moo ko gis nag te man awuma sa aajo ci fen ak yu ni mel laqad ra'aytuhu wa maa lii fil kadibi xaaja ñu ne ko moom moom mi doon jéggi est-ce gis na la mu ne gisuma dafa maa woon gannaaw dégg nga ñu ne ko ndax da buy dox maanaam tànk day dugg ci ndox mi mu ne déedéet da mel ne comme koy dox ci tali rek loolu netti nañ ko muwafiqu diin ibnu qudaama ci azeyla ala tabaqaati alxanaabila itam ci page boobu même jukkib 2 page 138 nettali na fa itam nettali nañ fa ne moom muwafiqu diin am na benn waay wax dafa feebar ku ñu wax abul hasan ibnu hamdaan aljaraihi dafa feebar feebar bu xaw a tar mënut a yëngatu mënul def dara dem bay sax di ñaan yàlla pour faatu ndax eh, feebar bu xaw a tar ci moom ay guddi mu wafiqu din ñëw fa te boobu mu wafiq mi ngi dund de bul xam nag fu mu jóge ñëw ci néeg bi ñëw ci néeg bi daate jàpp bopp bi jàngal ko ay jàng ci ay aaya yooyu itam gars yi dañ koy bañ jàng ci ay aaya jàng ci ay aaya ba ba ba aaya tëfli nag daan ne ko nag wanu nazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin Dat koy raayal yaram bi ci saasi mu wér mu yëg wér mu jàpp ne mu wafiq comme dañoo xamante dafa jàpp ne mu wafiq dafa ñëw maanaam daa ñëw ci foofu dañ ko ibil mu ñëw mu ne ah ibil leen kilifa gi mu dellu kon mu ne ko jërul ibbi kay man fa ma ni ma ni ma ñëwee woon laay delloo daati neena ñu tassé nak ab tisbar di julli ci jakk ja mu nuyu mu wafet mi nga xam mom moko ko gisoon ñaanal ko ba mëna ñew jakk ja mu gis ko mu wafet daat koy bëss loxo bi ne ko bul wax dara nak de bul netti mu ne ko dina ko netti de dina ko netti lolu amna ci xanaabila yi azeyli ala tabaqaati alxanaabila ba tey ba ñuy tarjamal imaadu diin al maqdisi kooku moom moo gën a yéeme ci xanaabila yi ndax moom li muy def ci kéemaan dafa garaaw benn waay dafa gént ak jigéen mu gént ñu ne ko dem leen ci imaad mu ñaanal leen moom mi ngi bokk ci juróom ñaari ñi nga xam ne ñoom ñoo suuf si ñoom ñoo teesu foofu rek laa yem bañ dellusiwaat ak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah